am niveau. ba naaru niveau mais dina am li nga wax nu ngi koy xaar indi problème mu ko. déedéet déedéet déedéet li nga waxoon la l'image de notre peuple quand même. nañu waxante dëgg nag loolu si parlementaire loolu wàcce loolu wàcce débat bi la Omar. nu ñu wàcce débat bi wàcce kon nag waajee wàcc waajee wàcce ba dem fu mu wàccee débat bi est-ce Ba ba mu fa ñëwee laaj nañ ko problème xale bu jigéen Boun Abdallah Dionne ba mu fa demee laaj nañ ko problème xale bu jigéen mas nañ ko fa laaj benn premier ministre kon ñun ñoo waar a xoolaat suñu bopp ñun ñu leen fal ñun ba fal ñoo waroon a tànn ñoo xam ne bu fa demee duñ leen laaj ay problème mu mërs ay problème mu fes di wàcce suñu réew ci falin bi la yow xam nga ne états bu ñu fa nekkoon Sonko mi kenn du ko fal de yow xam nga loolu waxal waaw États-Unis dañ ñoo gën France gii bu fa newoon kenn du ko fal yaa ko gën a xam kenn du fal Sonko ndax ñoom gis nga ay ay jege ñaalo ay lambi soog ay yii rek dañ la ciy écarté ah. maire New York biñ mujjee wàcce luñ ko wàcce boobu diggante mag secrétaire am lañ am ay kii yuñ ci kii ah pour bañ a tudd rek ay affaire u jigéen yooyu rek mais à la fin luñ ci jëm dañ ko imposer pour mu bàyyi parce que day taasal seen image réew ñun ñu mën a fal boo xam ne nag sànni na fa diwu na fa fudd nañ ko fa après ñu ñun ñoo wàcce suñu bopp Fatima désolé ko gis nga Ousmane Sonko Ousmane Sonko je pense que je pense que Ousmane Sonko. il doit aller à l'Assemblée nationale gars yi duñ ko lekk duñ ko dibi duñ ko def dara lu dul poser ko ay questions. waaw ah, te te important aussi parce que Sonko tamit Sonko c' important aussi parce que Sonko il a raison ah Sonko depuis quelque temps ay point de presse ngay dégg ay kii conférence de presse war ko mën am Sonko les gens ont besoin <laughs> te gars yi mënuñu ko Sonko les nit ñi wóolu nañ ko ba pare c' est lui le chef du gouvernement na dem assemblée nationale gars yi posé ko ay question mu tontu leen question bi nga xam ne ni jàpp na ni question bi c' est wala question bi waruma ko tontu wala question mais mais nga ne du ma tontu ah, d'accord sëriñ. boo ci tontu bon bon pour ah, entrer. yow yow Omar. boo ci tontu député yi rajaxe débat bi <laughs> euh, ci li nga doon wax noonu léegi. xam nga am na foo xam je suis parfaitement d'accord ak yow. parce que aujourd'hui ay député lañu wax. Mhm. député yoo xamante ni la gën a xaar si ñoom mooy représenter dignement le peuple sénégalais. duñu ne nag waa Benno lañ def. ñu sañ-sañ bi si yoon lañ ko teg parce que yoon moo leen ko may ñu déposer motion de censure mais wax nañ léegi jar na ko wala jaru ko en réalité est-ce que jar na ko foofu la question bi nekk parce que enjeu yi tey bari nañ bari waaye goo xamante ni Omar wax na ko léegi tey boo demee ci assemblée wala parlement yu bëri dafay am ay xuloo dafay am ay xeex mais nag boo ko saytoo ba si biir itam la ñuy xuloo ak di xeex dafay jëm si intérêt réew ma am na ñoo ci liste nationale ka leen fal la ñuy génnee mais bu ñu àndul ak moom dañuy taxaw ne ànduñoo ah ak moom mais malheureusement nag ñun maturité boobu yàgg kuñ fa tey ñin bokk Pastef wala bokk ci coalition jomaay jaaree fa nekk ay député jàpp nañu ni tey lépp loo xamante ni ñoom loolu lañ bëgg rek loolu lañu war a ànd ña nekk Benno itam jàpp nañu lu Macky Sall bëgg rek ca loolu lañ war a ànd parce que gis nañ fi ba taay ay député waaw loolu laa def warta demee noonu mm-hmm. mais nag du gaaw a dañ tam aussi mm-hmm. parce que loolu ci système constitutionnel bi la maanaam ni ñuy tabee député yi la day am ñoo xamante ni dañuy dem assemblée nationale te waruñu dem assemblée nationale day am ñoom doon nañ ay député te waru bu doon rek ci dans l'ordre normal des choses du ñoom ñoom war a dem assemblée nationale xamuñu sax luy njëriñu assemblée nationale léegi nag ñu bëri ñooñu lañ dajale fobeer for leen yóbbu leen biir assemblée nationale moo tax nga gis assemblée nationale bu ay nit taxaw ñu weqante di gaañante si assemblée nationale ngay gis assemblée boo xam ne dafa caricaturer complètement l'image de notre pays adduna bi tu as vu yooyu yëpp gis nga ko ci biir assemblée assemblée nationale kon on doit revoir non seulement le système constitutionnel mais député yi aussi war nañ xoolaat seen taxawaay li ngay wax aux États-Unis nga ni bu doon États-Unis la wala Paris ba nga ne ma yaa ko gën a xam bu doon Ousmane Sonko duñ ko kii xam nga bu fekkoon États-Unis nga nu ñuy ah, def réew mu sérieux mu mel ni États-Unis ka orchestré complot ba la ñuy jàpp waaw ah, complot bi expert mu bi nag est-ce que yaa orchestre ko de complot xaaral ma ñëw non xaaral ma ñëw xaaral ma ñëw que complot ba jël jigéen comploté ko waaw pour daaneel un opposant politique kooku la ñuy xaar mu wàcc ñu ne ko ñiix dóor ko ci kaso bi bu demoon France la noona la ñuy def dañuy xaar kooko wàcc ah. ñu jàpp ko dóor ci kaso bi daal ki a vu da déglu ma wax la rek léegi sperme bi ñu prélevé ci xale bi waaw léegi xaaral ma ñëw comme ça xaaral ma ñëw loolu yaa ko gis yow nga ne yow ko gis man gisuma médecin dama ne waaw sa kanam yow yow comme espionneur nga. yow mën nga gis loolu yow yaa xam complot bi yaa ko fekkee. dama la wax rek complot bi fekkee nga. bi waaw am. en réalité. waaw parce que dañ see tudd ñoo xamante ni. waaw doon défendre. moo leen tuddal seen bopp. waaw prélèvement yi tamit. mercier bi moo ko tuddal ne la mercier assermenté. waaw man fekkee moo ko bi génne na fa. man fekkee moo buy dund. fekkee ma mais man li ma lay nii. maa fekkee. ka ngay défendre ko wax. man maa fekkee moo si tudd Mamour moo si ay nit yu bare bare tu as vu fekkee moo tax dama ne la bu fekkoon un état sérieux pour daana si 30 secondes yi ngay wax noonu yi état sérieux yooyu dañuy xaar rek ñooñu wàcc rek ñu jàpp leen rek sol leen ci kaso bi ce genre gi léegi la ñuy la ñuy jeexalee waa dimbali leen ma daggal ma seen micro yi daggal ma seen micro yi Omar Omar dagg nga ko ah Omar le président de la République prend acte ngir yàlla ay bi le président prend acte le président prend acte ak pour pour terminer Omar le président prend acte depuis la Chine def na def na li prend acte boobu lan la lan lan moo nekk derrière vite fait balaa ñu ah, jeexal prend acte kay mooy ah, gis naa ni assemblée national yóbbu nañ fa suppression lii ak lii ak lii assemblée assemblée nationale bañ na il prend acte mooy bon léegi nag on on va on va voir président ban ban ban ban ban mesure ban taxawaay la si am quoi mm-hmm. ban taxawaay lay am par rapport ak assemblée nationale dogal bu mu jël bon jàpp naa ni prend acte conséquence bi mooy assemblée nationale bi mooy ñii daal le 12 septembre ma tas leen quoi ku nekk dem fa dem sa kër après ñu xoolaat leneen le président ah, prend acte. Mm-hmm. waaw prend acte sax niñ ko bindee en réalité ne du lu neex président de la république. maanaam neexu ko xam nga je prends acte wala dégg naa la moom. kilifa bu ko wax non neexu ko. fekk na xol ba jeex donte nag donte nag bettu ko. mais neexu ko parce que défiance la dañ leen défier. Ah. waaw waaw dañ défier autorité bi. Mm. te président de la république que soit muy bas ak ku mën a doon ku ko défier rek la bañ. Mhm. boo xoolee Macky Sall li xew si diggante moom Sonko yépp mhm. défiance yi ko Sonko doon défier la. mu dem ba exercer autorité am si kawam. Mhm. donc autorité bëggul loolu donc en réalité mooy li président Macky Sall waxoon ba ko conseil constitutionnel. kiiwee euh, euh, defe euh, na gàntale bu voilà gàntale loi bi ñu waroon dugal assemblée nationale. bi muy bind commune itam loolu la wax. Mhm. mais après gis nañ li ci la ca topp. donc attendon de voir jàpp jàpp naan dina amaat yeneen rebondissement. Mhm. loo xamante ni dina tukkee présidence ñëw parce que wax naa décision la boo xam ne en réalité mhm. du lu ko neex. te dina am yeneen yoo xam dina ci dina ci amaat. lu waaye di def rek na doon avant le 12 moom ndax bu bu jeexee xam naa ne prend acte bi saaba veut li ngeen def nii euh, xam naa te naa si jël ay ndogal. da ko lijjanti moom Sonko mii la waroon jël ci moom ay ndogal fa mu la mu war a jëli ndogal jëlu ko waxam yi bu ko kenn du ko considéré kenn bu ko kenn lijjanti yow nga yor sa premier ministre ñu war a def yow 5 mois réew mi kenn xamul fu mu jëm jëloo ci loolu acte naan prend acte député yi ñoo tay lu leen neex la ñuy def na jël acte bu ko neex ñu dem élection. kenn loolu kenn lijjanti ko dafa yor pouvoir ñi yor pouvoir la preuve gis nga seen golo yi ñu ni woon ci kaw président Amadou am jot dafa génn ñëpp kon mooy patron bi foofu fee député yi patron bi mu neex ko mu naqari ko voilà Ousmane Sonko xoolal patron mbedd mi la patron mbedd mi la mais fii moom ku fii moom kuñ jàpp ñoom ñooy wax ñu bàyyi la parce que Ousmane Diagne dégg nga li mu wax neena moom moo ne procureur na ubbi ubbi commission d' enquête nee na moo wax procureur na ubbi commission na ubbi enquête ci ci mbirum ONAS mi procureur wur woon xaar loolu ñun loolu lañ doon bañ procureur bu ñuy joxe ndogal man lii bett na ma surprise bi ma ko dégg Ousmane Niagne wax ko tiit dama ne ñun lii nekk yéen Macky ñii Macky Sall leen gën dallu Macky Sall sax moo gën ñii bàyyi ba sénégalais nag gaaw balaa Macky Sall génn marab ñii mag lii lañ doon bañ di ñoom lii lañ fi doon tawari nekke la ñii ñii ñii ñii ñoo bon waaye nag yaa baax na sénégalais lii lañ mérito jërëjëf jëf pour trouver. il faut respecter le président. man de waxuma dara président c'est le président lan la lan la wax président yi tamit. il faut le respecter léegi lan la wax président yi tamit. voilà mais il faut le respecter. lu ma ko wax maa tey non il faut le respecter rek fa laa yem. lu ma wax président maa tey. non fa laa yem. lu ma ko wax maa tey mais il faut le respecter quoi. waaw man respecté wu c'est la première institution. respecté wu ma ko non déedéet dama kaa respecté wul. Ah, man maa ko respecté wul je m'adresse à Nguer man maa ko respecté wul. man léegi respecté wu ma ko. c'est le président de tous les Sénégalais. sama président waaw il faut le respecter man du sama président waaw mën nga ko wax mais sa président reconnaître uma ko ko maa tey man da reconnaître uma ko waaw waaw la neexee d'accord merci beaucoup jeex naa ah. vendredi vendredi ngay ñëwaat incha allah waaw oui ma vendredi lañ lay retrouver waat incha allah va euh, sëriñ sëriñ